la revue, euh, la revue des titres avec Fatima Bar. mbokk internet ak téléspectateur yu Diaspora News TV ñu ngi leen di nuyu di leen dalalaat ci seen revue de titre bu altine bi leen di fukki fan ak benn ci weeru décembre dañ koy door ak li journaux yu bëri xëyee ci seen xët bu njëkk muy wax ji nga xamante ne maître Moussa Diop wax na ko mu nekkoon fi directeur général bu Dakar Dem Dikk moom naka dafa génne ab autorisation d'exploitation minière ne kii di président Macky Sall ak ki fi nekkoon ministre des Mines Aly Ngouille ñoo ngir exploitation benn mine bu nekk nord du Sénégal jox ko ki nga xamante ne mooy directeur CS di Mimran wax jooju nag kii di ali nguy Ndiaye weddi na ko ba mu set ki fi nekkoon nag directeur des mines Ousmane Cissé moom nag wax kii di euh, maître musa Diop li muy wax du ci teguwul fenn ndax Sénégal amul ay roche diamantifère te en plus nord boobu amul diamant beneen beneen journal wax leneen muy La Tribune ñoom nag nee nañu kii di Bougane Gueye Dany kon waxoon na dëgg bi muy wax 2021 ba tey nekk li nga xamante ne mooy jamaa am na Sénégal kon mën na doon dëgg wax jooju nag journaux yu bëri xëyee ko même le mandat tamit confirmé ne peut-être lii di euh, Bougane Gueye doon wax mën na bëgg a doon dëgg ñu dem ci beneen journal muy Les Échos moom nag di ñu xamal ne ñii di jàngalekat yu enseignement supérieur yi dañoo def ab ndaje bootu ci 168 euh, professeurs yu ay titulaires ak ay assistants ñoom nag wax nañ ci fermeture bi nga xamante ne tëj na nañ ko UCAD ñoom nag ñu ngi exiger lii li nga xamante ne mooy ubbite bi ak reprise présentielle nee nañu dàq ñu benn yoon porte plainte bu état bi nangul def jëf ji ni mel dañuy dem ci journal Le Soleil mu wax ci inauguration euh, nouveau sanctuaire bu Popenguine loolu nag euh, chef de l'état bi euh, jëloon ci ay matuwaay ne nañu def ay joxe ay directive ne nañ def événement boobu mu jaar ci yoon ndax kii di envoyé Pape François bi dafi doon ñëwul mbir moomu naka am na fii fële ci Popenguine Popenguine inauguré nañu li nga xamantene moy sanctuaire bu bees bi journal bi di yor yor di wax ci benen wàll muy wax yi nga xamantene député Matar Diop yëkëti woon na ci assemblée nationale euh, Tariq Ramadan nak mu ngi menacé di ne dina porter plainte ñi muy wowe comploteur du mensonge nee na Cheikh Yirim Sek la ma jambal jañ ak kii di député bi di Matar Diop dañ koy joxale ko walu tagat yaram tribune sport di ñu wax ci 7e journée ligue sénégalaise Tinguet FC nekk nekk leader bu bés le jaraaf moom daa mujj enfoncé ñii di waa Casa Sport journal record di ñu xamal ab nouvelle bu bees muy góor gi si Dieng intégré na staff bu Spurs jàngeen <coughs> jaajëfal ko bu baax a baax moom Fatima Ba moom moo ñuy defal li nga xamante ne nii moo di la revue des titres ci l'essentiel du matin monsieur Fall a dû cela mentionné tout à l'heure mu di anniversaire ki nga.